Balde ñu ngi lay nuyu. Abdoulaye Dia waa lay fay. alors euh, ñu bëggoon xam rek euh, gannaaw ba maître Abdoulaye Wade woo na euh, Macky jaajëfal ko félicité ko déjà yow noo dundee nërmeelu gi nga xam ni seen camp nërmeelu na ko ci élection bi. bon gëm yàlla rek xam booy dem si aussi je pense que lépp ngay et puis gëm surtout loo xam loolu yàlla dogal. Euh, je pense que yàlla dogaloon na ni que pour suñu pouvoir te lay jeex donc euh, loolu sénégalais war nañ ko sóoraale sant si yàlla surtout nu mu demee parce que mënoon na demee neneen euh, je pense yàlla def na lépp lu jaas yoon sénégalais dem nañu voté tànn seen jiit ñëpp nangu ko rawatina président waat ñu xam ne nekk na ci opposition pendant vingt six ans boo continuer di fa xeex ba douze ans mu exercer douze ans le pouvoir je pense loolu aussi te wane na njàmbaarteem wane na aussi loo xam ne euh, moom la mënoon ci dëkk bi je pense que lu de def rek du rendre ko hommage et puis je pense que peuple sénégalais bi waroon nañ amal nañ ko njukkal mais aussi di di di gërëm et surtout di féliciter Macky Sall xam ne aussi bon euh, il a pris à ses chances et puis surtout doxal na yëpp démocratie parce que dafa parcouru Sénégal yëpp wax leen lan mooy seen projet lan lan mooy projet bon nit ñi gëm ko et je pense que de façon générale Euh, boo analyser kii bi c'était une volonté de changer donc nit lañu dañu bëggoon changer je pense ko ku fi mënoon nekk rek tey xam naa sénégalais dañ lay fal bon di ñaanale rek yee seen yaakaar bañ a tas surtout que Macky Sall euh, indi loo xam ne moom la dig nit ñi de toute façon ñun ay ndaw la ñu donc nekk nañu ci coalition boo xam ne gëmoon nañ ko euh, nekk nañ si ginnaawam nit boo xam ne gëmoon nañ ko aussi donc dinañ continuer di xeex pour défendre idée yooyu Euh, que euh, li ko waral junj nga ko ci sa gis-gis ak sa jàngat su ma jà jàppee li nga wax ak mën ko tënk mooy volonté de changement fa nga ko teg mais gisoon nañ ni premier tour euh, ci sa diwaan maître Abdoulaye Wade dafa gagné waaye deuxième tour bi dafa nërmeelu noo jàngatee loolu yow lu ko waral ci sa gis-gis mooy euh, je pense que volonté de changement bi ma wax rek parce que fii bon boo demee boo demee laaj bi ngeen soxlaa ñu bëri dañ naan waaye suñu maire bi maire bu baax la bu dee moom moo nekkoon candidat dañu ko votel mais dañu bëggoon pour euh, en Africa c'est un système général loolu la bëggoon changer donc man c'est man je suis un élément de ce système là donc euh, gëm naa loo xam ne moom mooy seen gëmal seen gëm-gëm aussi yaakaar naa ni aussi que Sénégal démocratie majeure la déjà si monde bi ci rawatina en Afrique euh, te am naa yaakaar ni que kenn dootu fi mën a ci def ay quinze ans ou vingt ans de pouvoir boo fi defee benn pouvoir ou cinq ans déjà nit ñi dañuy commencé tay soow donc euh, di wax Macky di ko gërëm et di di ko di ko ñaanal yàlla a tout cas mu wéyal premier mandat bi nga xam ne aussi que dina am opposition boo xam ne opposition bu am solo la parce que ñun ñëpp defe naa loolu sax dafay précipiter recomposition politique boo xam ne amoon na ko déjà mettre entre parenthèses une bonne partie de la classe politique ñoo xam ne peut-être que war nañ dem retraite e puis ñun ndaw ji bon dinañu taxaw aussi sàpp suñu dënd bu ko defee jàkkaarloo yow ak ah, moom si dans cinq ans aussi dinañu waxaat suñu affaire suñu suñu mbir voilà Abdoulaye Baldé ñi ngi lay gërëm di la sant ndax bokk nga ci ñi njëkk nangu réagir rawatina ci camp euh, bi nga bokk muy fal 2012 te ñu jëlee jël kon ci second tour élection présidentielle bi ñi ngi lay gërëm